bi nga xamante ni ñu ngi euh, euh, soxal ñu jëm ci wàllu autosuffisance alimentaire. parce que li fiy jëf tey ñu joxe ay jur ménage yi nga xamante ni seen loxo jotul ginnaaw pour ñu mën leen dimbali euh, joxe ay lu ñu alimentaire farine bu ñu amélioré besoin de maïs bi nga xamante ni dafa mucc ayib ci wàllu nutrition doomu aadama loolu bu ñu def ñun suñu xel dafay dem ci li ñuy woowee développement du capital humain parce que ñëpp xam nañ Sénégal am na benn téere bi ñuy woowee planification économique à l'horizon 2035 bi ñu ko plan Sénégal émergent ci axe 2 bi président dafa wax ni pour ñu mën a am économie bu baax il faut que ndaw ñi nga xamante ne ni ñoom nekk ci dëkk bi ñu mën a am jàng bu baax mën a am wér gu yaram bu baax te kenn du wax wér gu yaram te waxul nutrition donc li ngeen def nii dafay jàppale état du Sénégal moo tax ñu leen ci bëgg a remercier di leen féliciter euh, particulièrement mais également di wax que ni lii lu baax la bu ñu koy defati nañu dolli di impliqué chef de service yi sànq dégg nañu médecin chef wax ko kontaan lool lool ci dégg ko mu engagé wu devant préfet que dina accompagner projet bi ak activité yi nga xam ne moom la ñuy lancé tey waaye bëggoon naa aussi lu mel noonu ñu mel ni euh, euh, service de l'élevage service de la promotion du développement territorial ñu jël même engagement bi mais aussi mënuñu jël engagement ci loo xamante ni yëguñu ko moo tax di leen ñaan rek davantage ngeen leen di boole ah te bu ñu waxee boole wax ñu ngeen xaar ba ci pandaw ba mais en amont avant projet bi di commencé ngeen dem gis leen waxtaan ak ñoom parce que bu projet bi jeexee ñoom ak ndaw yi ñoo fiy des ndax tey jii wax naa ko dafa am ay gàtt ñuy joxe mais gàtt yi il faut ñu toppatoo leen il faut ñu faj leen il faut ñu dundal leen te dundin bi ak faj bi ñoom vétérinaire yi ñoo ko mën a def donc dugal leen ci projet bi ci njëlbeen loolu dafa nekk lu baax donc maa ngi di ñaan ñoom waa élevage ak bépp chef de service fi nekk ñu def comme lu médecin chef def ñu engagé wu accompagner projet bi parce que bu ñu koy def du ay doomu aadama la ñuy accompagner particulièrement mais état du Sénégal bi nga xam ne moo leen yebal ci gox goxaan yi suñu ñoom donc ci tënk euh, am nañ mbégte lool euh, ci li fi xew tey di wax ñi nga xam ne ñoom ñoo yor jur yi bu ñu xalaata mukk ragal jege ñi nga xam ne ñoom ñooy les techniciens de l'élevage pour ñu jàppale leen ci ni ñuy def ba seen jur yooyu noonu mën a jur njariñ parce que xaalis bu bëri lañ ci def xaalis boobu nag war ñu koo sal ci fële